am solo boo xam ne bii ministère bi daf ko tàmbali woon ak banque mondiale ñu tuddee ko programme bu compétitivité agriculture ak élevage ñaari ministères yi seq ko euh, ñu am euh, programme de cent quatre-vingts millions de dollars euh, programme boobu nag moo ñu mën a permettre tey ñu jënd oto yi ak moto yi nga xam ne dana mën a permettre service di mën a dox parce que àll bi kenn mënu ko dox ak tànk donc te bi ñu demee également ci àll bi gis nañ ne eh, ñu yore service régionaux yi comme départementaux yi am nañ problème pour di mën a déplacer wu donc ñu jënd leen juróom-ñetti fukki oto ak juróom-ñeent dana mën a permettre déjà service départemental bu ci ne ñeent fukk ak juróom-benn dana na am benn oto euh, service régional fukk ak ñeent danañ ci am oto service yi nga yi nga xam ne également ñu nekk fii euh, rawatina ANCAR direction protection des végétaux. Euh, Debre laa ak ñoom ñëpp ak direction agriculture pour ñu mën a def seen journée am nañ également ci ci oto yi yaakaar naa ne affaire oto moom kenn doonu ñu wax que ne tey mënuñoo dem parce que amuñu oto parce que bi ñuy ñëw fii fekk nañ vraiment parc boo xam ne daanaka dara nekk fi woon euh, moto yi également juróom fukk ak ñeent la déjà service euh, départemental bu ne dana ci am benn benn moto kon ñoom danay am moto danay am oto léegi mu des juróom-ñett yoo xam ne dañ koy séddale yeneen service yu mel ni DPV pour que aussi ñu mën a mën a kon nag wax dëgg yàlla ñu ñaax euh, chauffeurs yi euh, d' abord ñu ñu toppatoo ko parce que oto yi d' abord oto yi seer na daanaka programme bi dèjà lii rek ñu ngi daan ci 2 milliards et quelque yoo xam ne dañ ko jënd ci oto donc il faut ñu ñuy saytu oto yu baax a baax parce que bi nga xamee ne bi manqué nañ ko gis nañ lim gàllankoor seen liggéey